xale bi taxawaay la hmm. yax kii boobu dana mu nidu hmm. sax data bopp gunge hmm. te booba taxawaay bu jag la mooy ku man boppam la waana te man du sataatin borom taxawaay la yax kii boobu dana mu nidu a sax data guntu te daa den naatu saada mm. mooy mm. mm. ma saada lamma ma gisee nudrataha taarab saada waraaytu te ma sàmm xudrataha naata naataayu saada naata ngoom saaltu laaj naa naxaarira ruwaati way nawi man ci kan tax wii dana ko làq saada mina sarati ci sang yi bu ma demee ba gis bi ba dem bu ma demee ba àgg gis bi ni mu rafetee hmm. ak ni mu bëree xewal hmm. te ku fa dem rek bokk ca ah hmm. ñi nga xam ne bëri nañ luñ xam mën nit dama leen laaj dëkk bi ñi nga xam ne ñoo fi nekk dañu baax a jaxasoo hmm. ndax boo doonee ku tumaranke ci barab hmm. danga war a ca sax dëkk ba hmm. ko jaxasool pour mu nekk sa ndëgër lay moo tax ne falam maa raaytu bu ma gisee nudrataha taarab saaka wa raaytu tema sàmm xudrataha naataangoom saaltu laaj naa naxaari way ñëwe way solo kan tax wii dana ko làq moom saada min nasaraati ci sang yi wa maadinil xayraati ak mbelli xiw yi ñi nga xam ne ku jaxasoog ñoom man di jë man di jëriñu ñoom li ab taxidahu ngir naa ko jàpp jadwatan muy xal mooy leerloo kaay dañ wax jadwa dañ wax jiswa min aw jidwatin minan naar hmm. dañuy jàng ci alquran di kasara hmm. fi zulumaati ci lëndëm yi hmm. war nañ datan tere kattan wala ndimbal ba nga ne njàmbaar fi zulumaati ci tooñaange yi ndég yenn yi nga xam ne kilifa ji mën a xee nit e mu dema ci xee bu ma ko soxlaa mu nekk suma ndëgër lay bu ñu fi bëgg loolu moo taxoon ma di ko li ab taxita wu ngir naa ko jàpp jël watan muy xal wala nga ne ngànji ci dulumaati ci lëndëm yi wa naj datan tey kàttan ci dulumaati ci toñange yi ku nooyee tam mellalees lii ñaal ma qaadin ak ab sang bihaa ci saada Mm-hmm. rahibul baax ku daaji yaatu ci ñeñ mm-hmm. mooy ku yaatu kër xasibul mm-hmm. rib maanaam ku lu attan rahibul baax ku daaji ci ñeñ wala nga ne taxaway xasibul ku daaji na ci kër tamimiyun nasabi kare ko ñu tamim ci askan watti ak jikko ñu ma fi benn xaadi bu xam ku tabe la mm. te ku neex a jaxasoot la mm. ku bokk ci banu tamim mm. bokk na ci min haysu nasabi bokk na ci min haysu tabe te banu tamim ku ne xam na ne ay sang lañ naka jëkk xaali la anta wa man tamimun xaaluhu yana lil ala wa yakrumin axwala naka jëkk ay sang lañ wala bu nooyee tam melalees li ñu al ma qaadin qaadi biha ci saada mm. rahibul ba kudaaji yaatu ci ñeñ mm. xasibul riba kudaaji naat ci kër mm. tamim yun nasabi kure ko yug tamim ci askan ko ci baya ci jiko falam asal dañu ma ataqarrabu de huta jegeñee ilayhi jëm ci moom bil immaami ci wàcci léeg may def léeg-léeg ma de ko seeti mm. pour bëgg mën a am gilloog moom mm. <coughs> waa tanafaqu te may wuta hawoo mm. alayhi ci moom bil ijmaam ci néewal siyaare nanguwuma woon heure bu nekk rek mare daanu ci bëtam yi mm. ba ni ku koy xatal mm. su ma fa demee mm. damay toog ba yëg ne namm na ma ma door faa delluwaat loolu mooy waral xaritoo boo xam ki nga xaritool doo ko sàppi waaye nit su fekkee heure da ngay daanu ci kawam rek da gaaw sax sàppi ndax day gis ne da nga koo xatal alayka bi iqlaali ziyaarati innaha ida kasurat kaanat ilal hajri maslaka xarit boo fa amee di fa seeti waroo de waxtu wu ne nga daanu ci moom waxtu wu ne nga daanu ci nit bu waaye day gis ne da nga koo xatal rek bu yàggee day gis ne rek moom da nga koo sonnal rek su boobaa nag respect ba waroon a am ci diggante nit ak xaritam dootoo ko am ci moom alayka bi iqlaali ziyarati innaha ida kasurat kaanat ilal hajri maslaka fa inni raaytul xaysa mm. yus amu daiman mm. wa yus alu bil aydi ida huwa amsaka mm. mu ne gisoo taw bu dëkkee de sotti dogul rek ñu jàmbat ko waaye buñ ko gëjee rek loxo de ko ñaan nit itam noonu la mel te kamandal ñuy jëriñante mana waata na fokk may wuta mooy xaw alayhi ci moom bil ijmaam ci néewal siyaare xataa surtout ba mu mujj. Mm. sadaa sawti dëxëwu baatam. Mm. ba nga xam ne loxoom laa. Mm. ci bool yi nga xam ne soxla na de kuni wa salmaana baytihi tey salmaanam néegam. de kenn ci njabootam. bu dul ci juddu. da ci déggoo. dama mel ni Salman kenn la ci ashaabu nabi sallallahu alayhi wa mm-hmm. ci moom la yonent bi waxoon ne salmaanu minna mm-hmm. ahlal bayt mm-hmm. mu salmaan ci ñun ahlul bayt la bokk te salmaan faris la salmaan mbootaay la woon dafa tuub bëgg ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sangam waxanteeg moom jotoo na ko lenn ngay mën a def moom sa bopp da ma jëmbatal téeméeri garab yi tàndorma mm. topp bañ meññ mm. nga door a mën a doon mm. wala bu ko jaam ngay mën a doon liberté bu ànd ak Muhammad mi nga bëgg a ànd doo ko man te la ko sang bi waxoon Seydina Omar ni mu ci l'islam wax ne ku ko bëgg a jàppale ndax liggéey bi gaaw yonent bi ne bàyyee leen ko seulement soo bu ci liggéey bi hmm. bu jëlee tàndarma bu ko jëmbatee rek hmm. ci saa mu jóg meññ ci saa si hmm. bu jëmbatee rek ci saa mu jóg meññ ci saa si loolu loolu la yonent bi xam ca moom te bu ca keneen duggoon mën naa bañ a demee noonu mu taxoon ne bàyyi leen ko liggéey bi ba téeméeri garab yi pare yëpp meññ mu dem yoonam ànd ak yonent bi donc takku nag ci mboolee mi xanam yi ba ci la yonent bi waxee woon salmaanu minna alal bayt wa kuntu nekkoon naa hmm. maha sutiyaari suhudihi hmm. ànd ak nemm xobu lemam hmm. wastin saaqiran bihi ak foon gattag randam nekkoon naa asadu de fekke masaajiral xusoomi way xulooyi waas biro te may gis baynal maasum diggante ku ñu musal min moom ci ñoom mooy ku xëy wal maasum ak ku ñu boom wax dëgg daan naa jëriñu ci àndoo gi ci ay xanam te wut itam bu demaan ci mahkama bi li ta li taf jilil ahkam mooy doxal xatte yi dama fay nekk da dégg la yooyi da xam ku xëy ak ku ñu xëy waaw kuntu nekkoon naa asadu de fekke masaajiral xuloo xusoo xuloo yi way xuloo yi wala tabiwaay xuloo yi waafiru te may yëg baynal ci diggante ku musal min ci way xuloo wal maxsuum ak ku ñu ku ñu ayibal maas tiyaari suhdihi ànd ak nemu xobu lemam wattin saaqi randihi ak sorande bu gàtt randam wa baynama alqaadi diggante ba qaadi ji jaalisun aji jékki lil ijjaal ngir boyal hatte fi yawmil mahfili ci bisu daje wal ixtifaali ak daje mu am bis boo xam ne bisu liggéey la xaakim ñëw na ba toog mm. ci barab bi nga xam ne ci la war a toog bu nekkee ci service bi mm. foofu rek is daxala dal di tàbbi seyxun mm. ak ak góor bali riyaas ku daa ràpp ci kodday badili fiance ku daa feeñ ci lox boobu ak góor agsi yére yim sol xam naa yu mu woon a foor la waaye yére yu ràpp nag mu nga karkari di lox <coughs> tabassara mu settantal hmm. alxafla mbooloo mi hmm. tabassura naqaadin hmm. settantal ak gëstu haakoon mu xool nit ñi mbaax bëgg naa ku muy nëbb daraan koy mbi xool nit ñëpp daal summa saama topp mu jortu ne mooy mu hoote ne an na la hoo ñaal na ko xasman aji xuloo mm. xayra munqaadin ku duumu aji xomatu mm. mu ne dafa am ku ma muskila mm. moom la bëgg xaadi bi réglé ko ñu ne ko na ñëw falam yëkkun nekkut illa ka daw i sararetin ndare kem leer ak njar njarment aw wax yi isaaratin hatta uhdira lu may teewalees xulamun gune goo hmm. xam ne kaan na ko daanaka moom dirxamun gaynde la hmm. mu ne bi mu waxee loolu bañ ne ko na ñëw hmm. ci saa si rek lañ fi indi benn xale bu xam ne bu dëgër fit la buur bu la xooyee loo mën a nekk da ko war a nga dem xëy ji ko surtout su fekkee mbiri muskile yii la mooy gën mu jël see la sañ-sañam falam yakun nekkut mm. illaa kadaw isaratin ndare kem leer ak njarment mm. aw wax walla junjëg fasin mm. hatta uxdara lu may teewaleeg olamul gune gu xam ne ka ànd woo daanaka moom di xamum gaynde fa qaala dal di wax asseexu góor gi góor gi mooy kalaame mooy wax ko moo ko mu ne ayyada yàlla na dëgëral allahu yàlla alqaadiya qaadi ji hmm. wa asamahu te yàlla na ko musal min attaadi ci dumoyu hmm. kilifa gi ñu ngi lay ñaanal yàlla dëgëral la hmm. te musal la ci daw dëgg jagut ci kilifa ah, te musal la ci daw dëgg loolu jagut ci kilifa ayada yàlla na dëgëral allahu yàlla alqaadiya qaadi ji mm. e waxasamahu te mu musal ko mina taxadi ci dumoyu selu mm. noppi bañ a régler ay tooñ mm. inab nii naka sama doom xaasa ji sama doom ji kal qalami mu ngi mel ni xalima arradi gudaaji ñaaw sayfi ak jaasi mm. assadi judaaji xoomaak kalima mm. su mënta bind mm. nga xamee ko falay diisal te du la faree fam la war a faree jaasi bu xoomaagee manda dag nga xamee ko falay diisal te du la faree fam la war a faree moom daal boo wut xel lenn loo may mare ko sonnee rek te du jéem dara loolu daal la waaw ñu jàng dañ ko du sell waaye lii gannaaw jar na bàyyi de kalaame doom hmm. jar na mooyu ca ànd ak nit hmm. waaw te loolu gannaaw de kalaame doom hmm. waaw jar na mooyu ca ànd ak nit ni sama doom haada ji daal kal qalami mu ngi mel ni qalima arradi guraaji ñaaw wasayfi walla mu ngi mel ni jaafi asadi juraaji xoomaat yajaalu dana mu réeree aw saafal insaafe meloy sellal mm-hmm. moom daal xamut ànd ak nit mm-hmm. bàyyi xel xaq jim xam ci yow mm-hmm. loolu daal xamu ko dëgg-dëgg wa yardan dana mu nàmpu axlaafal xilaafi ay xenaati wuutee moom daal loo ko mën a wax mënuma ko rek xamut daal topp ndigal in aqdamtu bu ma songee hmm. ah jama mu dat hmm. su ma seetee mbir ba huulu ko hmm. jël ci engagement lu teppi sama engagement bi lay bàyyi xel rek waysa arabtu bu ma ah, bu ma arabale mooy bu mu ah jama mu hajamal mu lëmal lu ma wax ba mu leer ba dara dara dara waratuñ ko jaana table dana fexe ba dugal ci lu ko lëntal mm. su ko mane mm. wayin askaytu su ma taalee mm. ahmada mu lépp lu ma semb rek su ko mën a yàq da ko yàq waxtu wu ma wàjjee rammada mu doomal su ma lakk yàpp ba mu ñor sax attan na koo tilimal ak doom sonn ci dara ba des ca mu fexe ba yàqal ko nit ñi sax koy def maa àndi ànd ak man mm. kafaltuhoo yar naa ko mm. mus waxtu wam yukkatee ila mm. ila an sababam màgg te ba mu gimmee laa ko xamee ko taxaw ba mu dëhër manal boppam dara wa kuntu te nekkoon naa la hu ñaal ko altafa man de gën ci ay ñëweeti rabba yar na mu wa rabba te mu defar mm. te nag yar bu ànd ak yërmande mm. ci la yar mm. yar bu mucc ayib bu xam ne naxe amu ca yërmande amu eh, eh, kii ñàkk yërmande amu ca waaw te lu mu baax a baax ànd ak moom ci dëggu te da ko la ko yare wa kontu nekkoon naa la ko altafamante gër jaay ñëweti kaasa rabba yar na mu wa rabba te mu defar hmm. lum do de maa ko ko doxal hmm. waaye fi mu nii de suma dara jaralu hmm. loolu la góor gi wax ci gàttal fa akbara dal di al qaadi qaadi ji maa li nga xam ne saka tawat na góor gi lay jël ñoom ne haa loolu de jagadi loolu de ñaaw na de waatrafa mu héemuloo bii ci moom man ñi nga xam ne xawaa lay hmm. ñu ngi ci kéw ngaam ñu ngi ci pegga ba wax ñim dend ne waa ji góor gi la di góor ki di ñi bon na de hmm. waxee noonu hmm. su ma xaala topp mu ne asadu danaa seede ne annal xuquuqa naka mooy daal ahadu sukk lay ne kenn la ci ñaari yàgg ñàkk yara daal daal duut ñàkk a xam rek ndeke mm. jut mu mm. waaye jut parewut la fenn mm. loolu daal façon yara daal loolu la waa léegi fekk na xaadi ji nag dëgg dëgg lim def waru koo def kilifa warul nekk benn nopp comme yow da ñaari nit buñ kalaame xante bu kii ba àggal da ngay déglu na ko est-ce bu ne déedéet bu wax lu tax ko wala lu min bëri na jirmel hmm. aqarru gu gën a seet li ni ñaal bët hmm. sa law jur doom fu ko dégg sa naw gi dox hmm. wala foo ko ji sa naw gi dox foo ko ñàkk bu gën loolu ji wax yooyu eh, wax lu bi ak lu mu doon doon kilifa na moom xaade a ah, dogale ko jot na mu doon ko seetaan mën naa wax ah, ko jot na nag fa qaala daal di wax alxulaam hmm. waqat amaa dafa te mbir moom na ko xasal hmm. kalaam jile wax hmm. xadi ji daal de wax te wax ji dugg na ko mu ne ko walladi giñ naa ci buur bi nga xam ne nasaba samp mu alqudaata qudaahi lil adli ngir maandu maa ngi giñ yàlla mi xam ne bëgg maandu moo ko tax a santaane fal qaadi hmm. wa mallakahum te mu moom loole hmm. ahinnatal fadli googi ngëneel hmm. wal fasli ak hatte mu def leen mu def ko muy liggéey boo xam ne nit da eh, ko mérito e ñu doon te kuñ ko jox war nañ laa dooleel déggal la qaadi dafa war doon ku jàmbaara jàmbaar da war a doon itam ku maandoo maandu hmm. da war a doon itam borom cër yu mucc mucc hmm. bu mu am mukk mukk laago hmm. da war a doon itam ku am balaaxa mën a wax ju leer a leer da war a doon itam ku bëri xam-xam àgg ci martabatu listihaar da war a doon ku bëri alal ku lu soxla nit ñi dara sart yooyu mooy dajee ci nit ñu war ko fal xaadi yi waaye su manqué nag mën a ko gannaaw sëriñ bi la ñoo ku ñuy fal yooyu war naa dajee ci kon dañ ko war a mérito parce que il faut dafa war doon ku jàmbaar a jàmbaar dafa war doon ku mando mando dafa war doon itam borom borom borom borom cër yu mucc dafa war doon ku am balaaxa dafa war a àgg itam ci martabatul ijtihaad ci xam-xam pour mu nekk amirul muminin nag dafay bokk ci xoray den waaye buy xaaree moom sax teel lay doon waaw wasaatuhu sajaatun adaala salaamatul aadaai wal jazaala wa kawnuhu filen huwal amsala wa min qurayshin il kiramul fudala satta amirul muminin lay se lay wax buy xaadi na bu mujj boobu mu ci génn kana waa xaadi buur a buur nit ñee koy fal buur na kamay fal ni la wax wa malakahum te mu moom looleen ayen natal fadli googi ngëneel ndax xaadi bu mat xaadi dana bëri yu ne ji moom yoo xam ne nekkul te ña ko topp ci ay xeeti ngëneel wal fasli ak xatte te itam bu ko nit mérité bañ bañ koko dañ ko war a dooleel nag wax ko teg ngi giñ ci yàlla mi tëralee mbir nii naka góor maa daan mos dañaan de mm. xattu ci li wéy mm. illaa am mantu ndare wax naa amin mm. su ñaanee daal amin lay wax wala daan mos da woote dara illaa amantu ndare bu gëm nga ne bu mos a waxal boppam wala may bu mos a waxal boppam danaa ko de nangu de wala labba musul wax labbayka illaa wa ahram ndare harmal na amul lenn lu muy yëngatu. Mm. lu may rek bëgg naa ne amoo. Mm. toppati ci kaw. Mm. da jëwee ci wala awra mosul mosul taal. illa waa ram dara xambana. fu mu mos a nekkee di taal. maa ngi xam. da am na wu ndare naka kaman dafa mel ni ku xam ne. yëpp yi dafay dal anuuqi ne ni tan mu wayat lu wute muy sàkku ak tayaraana mi ne nooxi ci gélem waaye nag boo bëggee lu mën da xam danga mere ku la defu dara loolu moo ca suma diggante ak innaka in kallaftani maa lam utiq saaka maa sarraka minni min xuluq ah xam fulla xam fulla gi may taggee bi may def loolu ma man may si jëfandikoo fulla ker boo def loolu ma manut moom nga may mere moom nga may mere damay bañee gul la rek mu jeex mm. waaw nit bëri na boo kontaanee ci jikkoom mm. beneen yoon nga mere ko mm. te jikko ja nga kontaanee woon ci moom moom nga même moom nga ko meree rek moom nga ko meree rek waaw jikko ja ba ko liggéeyee woon ci lu la neex mu neex tey bu liggéeyee ko ci lu la naqari mu naqari la rek waaye lu gën a bëri ci nit ñi duñ da am ay jikko yu bëri waaw nit pire ku sérieux léeg-léeg nga gërëm ko ci jikko beneen yoon nga mere ko jikko jooju rek a gërëm te nga ko may. da koy dikkee nu mu manee. ni mu doyee góor ni mu amee fulla rek. nga kontaan te defal gam la defal la nga dikkee ko nu mu manee ko. mu jëfandikoo fulla ca bañ ga rek. nga meru baax nga bëgg te amoo ko. fekk fulla rek la. loolu rek la de. ah innaka in kallastani maa lam utir. saaka ma sarraka minni min xuluq jël nga jikko ji may taggee nii. ker boo ma tegee lu ma moom nga may xamee ni soo bëggee di ànd ak moom da nga war xel lu nit man mm. war di bàyyi xel lu nit man mm. waaw waaye nit waru koo ne bëgg-bëggam rek mm. moom la war di rek na mu ko neexee loolu war na nekk loolu rek kaman dafa mel ni koo xam ne yab xii dana mu bay dal anooxi ne ni tan mu góor wayat lu mu dana mu sàkku attayaraana naaw mi ne nooxi ci gëlem fa qaala daldi wa alqaadi qaadi ji ne ko hmm. waa wabi ma ci lan aanataka lala sonnalee hmm. wam taxana te mu nattu taxataka sa topp waaw ana lum la teg loo mënu hmm. ba waral ñaxtu yi xaal gune gi ko innahu góor gi daal mustafira waxtu woon péexee muy waxtu woon gelee meneen maali ci àll bi mu ñàkkee daal wa mu ni ya tana tof ko bilim haali ci beekoor yesu mu ni da may togg gàcce atalam moda an atalam mata ba ma tokkar me ko at bisu aali ci laaj waa samtira te may tawlu ba suuban na wali niiri may léegi jamono neexoon na bari lu nekk ci loxo dem nañ ba ca kanam àddina wane na meneen mbir mel ni loola nekkatut ci loxoom muy wax ne na naa da dem ci nit ñi da leen soxla da leen ak a laaj bu ko defee may andi nit nag judd ba mësoor mosoo koo wan dara xelul bu baax a baax soo ko bëgg a dugal te mos dawal wax dëgg yàlla lan ko wanoon du ko a baax yow am wan ba loola la fi mu ne xas naa ca tàlli mm. mooy damay dugal ci mm. lu ma mos dawal lu ma mos dawal dégg nga mm. li yëf yi da ngir na bopp sir bu woo dogam alladi bi nga xam ne xaada ngiis na wayen jabira ak na jagu min na na jangu min xaalihi ci mbiram man xaada li damma gis nga baax a baax te yaree wut ma loolu nag xale bu ma commencé wax indi daal ñi tàmbale nodd nañ ñi tàmbale ñoom julli ñi tàmbale kati waxtu dañuy nga moom daal naare dem ci nit ñi mm. naan leen ñun dee waqad kaana te nekkoon na nag xiina axadani waxtu wam ma jàppee bi mm. darsi ci jàngale mm. daal la bëgg may wax mm. waqad kaana te nekkoon na xiina axadani waxtu wam ma jàppee daal si daal ñu jàng ma xam yëpp mën nañ cee bokk bi darsi ci jàng ba may jàngal hmm. wa addaba nii te mu xam wa allama nii te mu xamal ma adaban nafsi teggi ni bakkan hmm. ba doon ma jàngal li nga xam ne mooy yar ci nit ku yiw hmm. dafa nekkoon asraba di nandal xal bi sama xol ne annal hirsa naka xiir mooy ñàkka doyloo la nga xam ndég bëggi gu tat loolu matan batun coono rek la du yokk dara ci war rek coono képp lay indi mm. wattama xemem mm. da bàyyi xel ci lu ne mm. naa ko ci lu du sa cër martabatun yeddaange la sabab la ci yeddeel dugal gor ci lu jagut moom la rek ni su hóoloo ne li ko yàlla sédd kenn mënu ko cee teree jot lu mu ko séddu dara mënu ko cee tax a jot bëgg-bëggam du ko hen ci yenn yi waaw ndax dafay xam ne dem ndànk dem ndànk du ko teree jot li ko yàlla sédd xem fi nga war a yem wàññiwul warsak rom hmm. fi nga war a yem yokkul dara jaamam hmm. wa tamaha xemem maxtabatun sabab la ci yee deel hmm. wa saraha fuq mooy lu ne rek mën nga ko jël lekk loolu mat xamatun sabab la ci fër soo teggiwu lenn lekk lu bënn sa biir moo la jot rek wal masalata laaj mal amatun mbon lay sabab la ci yee deel wala mal amatun mbon la te itam wax dëgg yàlla al yadul xayrun minal minal yadi sufla mm-hmm. loolu yonent bi jàngale mu mm-hmm. ne loxo bu kowe moo gën bu suufe mm-hmm. ñu ne lan mooy loxo bu kowe ñu ne mooy bii joxe bu suufe mooy bii laaj mu ne mu ne lii la ma góor gi jàngaloon su ma sada nii topp mu saddaloo moom góor gi min falqi fii ci xar-xaru gémmiñam wanaxti xawaa fii ak xeet ak ay xaafiyam moom góor gi laa wax de moo wéy de mm-hmm. ci moom la déggee mm-hmm. moo wéy lii mm-hmm. moo wax ne irda bi adna al aysi waskur alay sugra dégg nga sugra manil kullu kasirun la day bam xàgg irda na ngay doyloo bi adna al aysi ci gën cay suufee dundu waskur te na ngay sant alayhi ci moom sukra man cant ak ku xam ne mm. alxullu loo néew mm. kasirun kem lu bari la mm. la day hi fa moom soo xamee loo jàllee doyloo ko xam ne lu bari ak lu tuuti yëpp addina bii kenn ñëwu fi ndég lekk addina nit dafee ñëw ndég jaamu yàlla subaana boo xamee loo fi nekkee jaamu yàlla jartul xeeb leneen wa mastaqalluuhu wala abuuhu walaysa walam yakun qasdan fa yadlubuhu ma nit yàlla yi du ñu xeeb lekk du ñu du ñu ayibal dund ndax xam ne du loolu du loolu moo leen fi indi ah wa mastaqalloohu wala abuuhu walam yakun qasdan fa yadlubuhu wa jaanib na ngay teet alxirsa xiir alladi xiir mi nga xam ne lam yasal dañu mu yahuttu di sippi xadaral hmm. mutaraqi darajaam aji héeg hmm. ilayhi jëm ci moom hmm. bëggeeg ñàkkaa doyloo li nga xam loolu bu ko dee nangu ndax ku koy def sa ngor du mën a mat te nit bu ngoram mat <coughs> du mën a mucc ci dugg ci lu koy toroxal waaw wajaanib na ngay teet alxirsa xiir alladi xiir mi nga xam ne lam yasal dañu mu yahuttu di sippi qadral mutaraqi darajaam aji héeg héeglu hmm. ilayhi jëm ci moom hmm. waxaami na ngay xaar an her dikka ci sa der hmm. na nga sàmm sa der ndax diina moo santaane sàmm der bul dugg mukk ci luy kajama sa der gannaaw ñu ngi laa moyuloo der yi nit ñi yow itam nga dimbale nit ñi bañ moyu sa der bi waaw dana ci baax de waaw gannaaw ñu ngi laa moyuloo der yi nit ñi da moyuloo nit ñi sa der waaw nga dimbale nit ñi mm-hmm. bañ mooy sa der mm-hmm. kama yoo xaamee ni kii xaare mm-hmm. allay su gaynde xan lib da tey ci kawaram kawar lay doon bàyyi ko ci ndunkali jëm ci weti eh, diggante ñaari përëg yi foofu kenn du ko laal wasbir na ngay muñ xalaamaa ci li nga xam ne naa ba jot na la <coughs> min faqatin ci ñàkk sabra ulil azmi muñ ak ulul azmi hmm. waax mit te na ngay du muñu alayhi ci moom hmm. su ñàkk dikkee ko muñ muñ gu rafet hmm. nga muñ ni ulul azmi muñee woon ulul azmi duñ sa morom waaye soroy teef lañ war a doon nit du jàpp ne kilifaam mu la waaye war naa nangu ne kilifaam roy teefam la nag comme sa roy teef la nag mu jaar du marankewul nga jaar bu ko demee gis nga bu baax a baax ulul azmi mooy ñi gën ci yonent yi alayhimu salaatu wa salaam mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ci gën a gën ki ci topp mooy suñ ba ibrahim moo ci topp ci gën ki ci topp mooy ci topp ci gën ki ci topp mooy ci topp ci gën ki ci topp mooy ci topp ci gën ñooñu ñoo ulul azmi <coughs> dégg nga mm. afdalu bil idlaaqi min kulli maxluqin ala ittifaqi mm. yalihi ibrahimu mm. summa musa mm. fa nuuhu fa ruuhul karimu heesa wa hum ulul azmi fa mursilul anam fal anbiyau fal malaikul kiram yaakaar noonu la gën gi demee dégg nga mooy ña ngay jàng ca laye ja shar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuuhan walladi awhayna ilayka kaaf gi yonent bi la ma wasayna bihi Musa wahen walladi ma wasayna bihi Musa wa ibra musika wati Ibrahim wa Musa wahen sa ana qimu diina selon ko waxa baax noonu la noonu la dégg nga loolu tax ma gag dégg wa id axadna min annabiyina misaqahum wa minka wa min nuuhin wa Ibrahim wa Musa wahen sabni Maryam ñoom la dégg nga dégg nga hmm. wala turex te balle tuur hmm. mahal mu hayyaa ndoxam xar kanam hmm. de wax kenn tollu naa barab loolu bu ko def mukk walaw xawwalaka doonte may na la nag almasolu kañoo laaj maa li nga xam ne fii day nekk na ci ñaari loxoom su yeboo nit ki buub li mu xam yëpp jox la taxul mu jar laaj su yeboo nit ki buub li mu xam lépp jox la waaye taxul mu jar laaj nag ida atasatka hmm. ak ku fulli am hmm. ida atasatka ak ku fulli am hmm. kafatkal qanaatu siman wariya mu ne bu la loxoy ñoo bon ñu bëgg marlo mbaa ñu bëgg a xiifal danga def doylu muy sa ndabal lox de sa ndabal ñam suba doylu dana la reggal doylu dana la manda hmm. ida atasat ka ak ku fulli am hmm. kafat kal qanaatu sifaan wariya hmm. sel mu baax baax fa kun rajulan rijluhu fi sara wahamatu himmatihi fi suraya da nga war ku xëyof ku mën a ànd ak ñi waaye nga xam kowe nag xam fulla ju rëy a rëy ba lay soofal dara du la jaral dugg jaxan moo tax da doon ko tànkam de dox ci suuf mm. te sa yitte nekk ci dëllëj mm. waaw fakkun rajulan mm. rijluhu fi sara wahamatu himmatihi fi suraya da doon ku tànkam de dox ci suuf waaye hitteem àgg na ca dëllëj ba fa inna iraqata ma il hayati duna iraqati ma il muhayya te géeg xam na laaj yoo xam ne muñ ba dee a gën am na façon laajin yoo xam ne muñ ba dee ak ko gën waaw dina ko baax a wax hmm. tuur hmm. maal mu hayyaa ndoxam hmm. bul wax kenn defal ma nangam may ma nangam wala xawala ka doonte may na la almasolo ka ñuy laaj e eh, maa li nga xam ne fi day nekk na ci loxo su xeboo sax waa ji naan la waa ji yëkkat ma bi jox la fal hurru gor man mooy koo xam ne in qadiyat bu laasin haynuhu bëtam mm-hmm. afa mu nëbbu qada mm-hmm. jaf nayi mm-hmm. laasi ñaari mbati bëtam xan naati rëyi walis ñaari bëtam mu ne gor piir bët bi bu laasee ndegem sagoom sax bët bu laas boobale du ko du ko gis maanaam bët du gis laas ba selum bu baax a baax la demee fala jesi on min xallatin mutakashifun wala marihun tahtal ghina ataxayyalu gor tollu ndigante du ko taxa saggi sagam ni nga xamee ne foog ne jekk na du ko taxa tëbantu su fekkee boo tolloo ndigante yaa ngi sàmm sa sag boo demee ba foog ne man nga yem bi nga war a mm-hmm. loo am rek saada la lay doxal mm-hmm. naka noonu itam loo ñàkki njëriñ da nga ko am ci falsafa mm-hmm. da nga ko am ci xewte loolu moo tax waaw mu métti métti dikkee da nga xam lu baax a xam parce itam bu neex ndax dikkee da nga ca jëlee lu baax a am loolu moo am solo fal wuru gor man mooy koo xam ne in qadiyat bu laasee aynuhu bëtam mm-hmm. ax fa mu nëbb xadaa jëf nayi laasu ñaari mbati bëtam xan mm-hmm. naasiri yi walis ñaari bëtam mm-hmm. wa man ak koo xam ne isa axlaqa bu ràppee diiba jiho lam yara wala mbàjjam xeetu ko la lam yara du mu gis ay yuxliqa ba mu ràppalat diiba tey ñaari dayi xar mu doon koo xam ne bu mu ràppee du bëgg cël maayam am hmm. moo xaar yi nag góor gi de moo ma hmm. nag man naa di dem ci nit ñi da laaj hmm. ah nit nag wax dëgg yàlla loo ko yarew jéemaloo ko ko bone na ko def du sotti xaala xaaris ne na faabasa dal di ñëkkal a soy ko góor gi wa faharra mu ñëkkal xar kanamam ba tey mu ne bi xale bi waxee xaadi ji ba nett li waxi góor gi góor gi ñàng lool mm. jël may licence lool mm. wan dara am mu jañu xalab ni hii ci doomam mm. waxarra mu coow mooy mu siiñ noonu mu ñëkkal mu engagé doom ji mel ni ku ko bëgg a song wan dara am mu jañu xalab ni hii ci doomam waxarra mu ñëkkal wa mu ne ko sëf noppil yaa xoqa ko yow aji mooy wuy jur xamuloo la wax mm. yow ku yara deku nga mm. ku mën a sa kilifa mm. yaa man yow mi nga xam ne huwa moom a saja mooy fot wa saraku saja mooy galan ak yax lu yax galanee xeetu fot boobu saja sarak mooy fot ci ndox lu mën a xew fon moom lu neexut borom xam ne la te du fay mën a jëlee ah daanaka xame la mbott moo dee loo gune de way ka xoonaa sa kéemaan ah man de waadu naa ci yow atuallimu fa nga bëgg a xamal nagam ummaka sa ndey albidaa sëy boolo wasiraka nga de xamal sa yaay njaabal alirdaa nampal man nga bëgg a yar te looy xam man maa xam man nga bëgg a yar te loo te man maa tax loolu mooy maanaam tuallimu ndax da ngaa bëgg a xamal nag ummaka sa ndey albidaa hmm. sa wasiraka nga de xamal sa yaay njaaba siiru mooy ki nàmpal gune gi te juru ko hmm. ali saxa nàmpal hmm. laqad taxakkakat hokkante na alxaqara bu jaan bila faa ci ñàngoor waaye da duma sa morom de alxaqara bu bila faa ci ñàngoor watanat xalu na alfisaalu mburtu yi xatal xarxan ba wëy ba ba wéy ba ba ci wéyu ràmm yi ba ci yu feebar yi hmm. xatul xaraa ba ci yu feebar yi hmm. yabe moo xew hmm. bu ku du dara fa nga ne ndax bu ko neexee yabe laqad taxakkakat hokkante na alxaqara bu jiit bil afan ci jaani ñàngoor wasan na tëqalu alfisalu mburtu yi xatul xaraa bu wéy feebar yi bokk ci en tant que kilifa mm-hmm. ñu ne yarekat la mm-hmm. dëgg-dëgg su bay wax mm-hmm. naa waxi ku yiw rek ak ku muy mën a waxat nag ndax kilifa warul ñàkk te teggiin da ko war a xam fu ne rek ku ànd rek mu ko ci yow mu rawatina ki nga xam ne ci yow la war a royee teggiin ndax nag wax bi jag naam jagul xam ngeen ne jagul borom xel a ko def jagul ah borom a ko def nag. Hmm. borom xel nag bu defee lu jagul. Hmm. dana li def jagul. maanaam su ma topp ka na woo daanaka góor gi nag. Hmm. di ma réccu na. <coughs> alama ci li nga xam na min fii ci gémmiñam. góor gi nag ndeysaan mel ni wax ji nag. mu ngi métti na ko nag. waxadat ko ak miqatu cofeel. xalaata la fii daba talam. mel ni xolam bi bi xagsi mu wax nag pour de pour jagal hmm. farana mu jaax ilayhi jëm ci gune gi mu xool gune gi hmm. bi ay ni aatibin ci bëtëb aji yërëme hmm. waxafada mu suufeel lahoo ñaal gune gi janaaxa mu laatifin mbaggam aji yërëm aji ñiwet aji ñiwet lante mu wàcce si lool laal canam ñàngale xoon sans bi ren cëlmaay recceeku waqaala mu wax lahu hmm. wax gu ne gën a wéy ka xoonaa sama xoonaa sa kéemaan man hmm. daal yaa bu ne yow sama ndoom hmm. inna man naka koo xam ne umira digaleem na ko bil qanaati ci doylu wasu jira te jàjjeef ko hani daraati walis toroxlu mm. hum ñoom mm. arbabul bidaati ñooy borom marchandise yi mm. wóolul mag sabati ak borom càkkutéefi bi sanaati ci mécc mu ne ko jàppal ci li nga xam doylool li nga xam koo xam dara lañ koy wax aussi itam nekkal gor da nga góor ci dara jag <coughs> mais ku góorul ci dara yoroo dara amoo lay war a doyloo fokk ci koo xam moo lay mën a dimbale ndax doo toog ba dee xanaa inna man naka koo xam ne umira digaleef na ko bil qanaati ci doylu wasu jëra te jaajees ko ani daraati wali toroxlu comme ñoom arbabul bidaati ñooy borom métier borom marchandise yi mooy commerçant yi xam dara walul maksabati ak ñuñ fagoy yi bi sinaati ci métier ak ñaam métier faama zabu daruraati hmm. daal boroomi lor yi hmm. ñi nga xam ne amuñ benn sësuwaay hmm. faqad tusniya seetef na bihim ci ñoom fil mahduraati ci yu ñu tere yi benn lu ñuy xaaye te ñoom bokkuñ ci ndax a daruraatu mahduraat qaida fiqhiya la boo xam ne ku ne xam na ko waab ka jotul sa bopp jahil te réeree nga xaasa taawila bile taawil nañ nat la ne yow lii xamuloo ko waaye xam na loo mu doon a wax loo xam ni niru wut ne sa waxi tey jii dëgg la ci yow alasta xanaa du wala mu yem lux ka te la maa li xam ne xii la waxees na ko alasta xanaa du yow alladi yaay ki nga xam ne xaarada gaarlante na mu abaahu baayam fii maa xaala ci waxi baayam ja wama xaabaahu te farlewu ko may mayete wu mooy xandu dak bàyyi ci parparlo yow sa baay wax na hmm. nga wax teg hmm. wane ne mooy sama baay hmm. waaye nag par par loolu ci yan damay wax ca pegg ba wax na lii dama suma dëgg yow yaa waxoon bu yàgg ne la taq'udanna ala durrin wa masxabatin likay yuqaala asiisu nafsi mustabiru wanzur bi aynika hal ardun mu'attalatun min annabati ka ardin habbaha shajaru fa addi hamma tusiru l axbiyau bihi fa ayu fadlin li hoodin ma lahu samaru warhabi kaabaka han rabin damita bihi ila aljanabi alladi yahmi bihi almataru wa tanzili riya min darri sahabi fa in bullad yadaka bihi falyanika dafaru wa in ruditta fama fi raddi man qasatun alayka qadru damusa qablu walxadiru mu ne la taxon dan na bal jékki mm. ala durrin ci lor mm. wa masxabatin aqil mm. li koy yuqaala ngir na waxees ne xasisun na si aji tedd bakkan la mustabiru aji mu aji muñ la pour ñu naa yow xam nga jox man nga muñ pour ni nit ñi wax lu rek tax nga toog di xii ba dee jaru boo dee li nga war a def doo ko defati da nga seet lii tax nga mën a dund mën li nga war a jëriñ nga ne ca bañ a déglu waxi ñenn ñi hmm. la taxoo dan na bal jékki hmm. ala durri na ànd ak lor hmm. wa masqabatin aqib li ko yuqaala ngir ne waxees na rek asisu nafsi ku tedd bakkan la rek pour ñu naan am na jom rek mustabirun aji muñ la rek ku mën a muñ la rek wanzur xoolal bi aynika ci sa xalaat du ndax suuf muattalatun sa de suñu yuqal minan nabaati di gàncax mm-hmm. ka ardin mu ngi mel ni suuf mm-hmm. su xam ne xappaxaa peeg na ko mm-hmm. asajaru ga seetal ba xam suuf kese soo xam ne dara dara dara newu ja ak suuf soo xam ne garab yaa ngi ne nekk de meññ ndax ñoo xemam di xam nga ne xemuñ nit kese kese kese du xem ak dara waa ji kese kese doy na nit il faut muy dara kon nag dara amagul mm. util dara ak noo ko mën a amee mm. waaw nit kese kese kese mm. doyut nit il faut balay doy rek ak dara comme dara amagul nag util dara loolu ma war a nekk loolu <laughs> war a nekk mooy dëgg de waaw ah, mooy dëgg de mu ne seetal suuf kese rek ak suuf xam nga bi ay ni sa bët hal ardu ndax suuf muakkalatun su dee suñu yuqal mina nabaati ci gàncax mm. suuf xam ne dara ne wu ca ndend ak kese la mm. ndax suuf soosu ka ardin mu ngi mel ni ne xappaha peeg na ko asajaru garab mm. xam nga bokkul fa di bayil amma wëlis li nga xam ne tusiru dana junj alax bi yaaw wéy dof yi bi ci moom yenn yi nga xam ne dof yee koy wax yooyu bu ko déglu fayu a ana ban ngëneel hmm. li ma din moo ñaal bant boo xam ne hmm. maa la woo ñaalu ko sama benn meñña hmm. bant kese kese amul benn isa lam yakun fi kunna zillun wala janan faam hada kunna allahu min sayarati ay garabam lay waxat neen su ngeen xamul ker xamuleen meññat kon de boo hun yéen defewuma leen dara na ngeen sëq dem ak keram mbaa ngeen de meññat may jëriñ ci meññeet waaye banti kese koo dee xama ci soxla waaw idaa lam yakun kunna zillun wala janan fa amada kunna allahu min sayaraati loolu la garab yi waaye yu fadlin ana ban ngëneen li ma dit moo ñaal bant boo xam ne maa la ñaalu ko samarum kenn meññat war hal laxasal rikaabaka sa gawar xam nga ren walit wàccuwaay. ramita hmm. boobu mar nga. bii ci moom. janaa bi hmm. jëm ci wàll. Hmm. alladi wàll gi nga xam ne. yéen mi dana dana dana bi bii ci almataru taw. man daal li ma xam fi bee koor nekk daal nar la sonnal. foofu daal sooy nga buubee su si bagaas rek dem fa tira nga nekk. loolu daal moo war a am. wa idaa raayta rifqa. asabi baldatin wa xasiita fiiha an yadiqa almashabu farhal fa abdullahi wasiatul fada tuulan wa ardan sharquha walmaghribu mu ne daal loolu la xam loolu la xam loolu daal la xam danaam loolu la xam de waaw warhal na nga laxasal rikaabaka say gawar han rafen walit wàccuwaay rameta boobu mar nga bihi ci moom ila janaabi jëm ci wàll alladi wàll gi nga xam ne yéen mi dana dottee koo bii jëm almataru taw. te itam ñi la tànnee. te lu mu baax ndimbal. jarut bañ a ndimbal ci ñoom. wattan si na ngay sàkkoo wàccee. arriya mandi. min darri sahaabi. ci ndox mu bëri niir yi. niir yi nga xam jëm ci tànqa naan naan ci ñi nga xam ne xam nañ mm. te mën nañoo dimbale ku loru mm. ñooñ mën nga leen feeñ mm. wax leen fi nga toll fayin bu lat bu tooyalee fee yaddaa ka sa ñaari loxo bii ci moom suñ la fajalee soxla falee ni ka na la ndoylu na la na la ndokkaloo asafaru tuufu muy warsak wu lew wu dox sa digganteeg loolu te loolu day na sant yàlla na nga sa koo wàcce arriya mandi mm-hmm. min darri sahaabi mm-hmm. ci ndox mu bërim niir yi fayin mm-hmm. bu lat bu tooyalee te yadaka sa ñaari loxo bihi ci darru sahaab fale ni ka la ndokkaloo a safaru tuub soo laajee xamula laaj xamula wàññiwut kenn dara <coughs> ah, laaj te war laa laaj moo baaxut waaye war ngaa laaj laaja rek wayu di tëbbu delloo fee la su fekkee dañ laa dëpp joxuñu la dara kon fama fi rëddi mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. nekkul ci delloo man xasatun benn wàññet alayka ci yow loolu duut lay wàññi dara duñ la gàddoo it wàññiwul la dara waaw wéyru di bu delloo fee la su fekkee dañ la gàdd kooku fama fi nekkul ci delloo man xasatun benn wàññet alayka ci yow kooku duut lay wàññi dara xarru da delloo boon na Moussa yonent yàlla Moussa xablu ca njëkk wal xadiru ak xadir yonent yàlla Moussa ak xadir laajoon na ñu delloo leen wàññiwut ci seeni martaba dara mooy Moussa telma ko baax a baax ibnu Imraan mooy dañuy wax ne du moom dafa am su su ko borom bi tegtaloon ko boo fa demee hmm. dana am sama jàmm boo fa dajee hmm. kooku de mën na la xamul loo xamul doon hmm. jàmm booba nag nga nañ mooy xadir xadir nitu yàlla la ko xam ne borom bi moo ko yeen tubal ngir def loo ko mu def ko su ngir dikkee gannaaw wóor na ko ne rek ndigalal yàlla la moom dana ko def hmm. amul suriyaan diw sangam nangu na ko hmm. amul suriyaan diw sangam nangu na ko hmm. yonent yàlla Moussa di ab yonent ab suriyaan la xame te suriyaan du nit ñi la xame parce que bu bëgg a xotti ah du la mën a seetaan bañ dajee Moussa ne ko xalaat tabi'aka ala an tuallimani min ma alimta rushda mm-hmm. man de fa la bëggoon a topp mm-hmm. ndax li yàlla xamal mm-hmm. nga xamal ma ci dara xadir na ko innaka lan tastatina maya sabra yow mun ñoon ndax mën naa def loo xam ne dëppoo la yow li ngay woote te doo ko seetaan ah fa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bi yow kubra mu ne ko bu neexee yàlla mm. du ma la tiital mm. ba def ay def nekk mm. ah xaaral sa tëji insha allahu sabiran wala ansi laka amra xadir ne ko waaw kon bu ñu àndee dee ma déglu na sooy seetu mu waxal la daal ba laaj dara قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا yàlla def ñu dem ba àgg ci war a jàll hmm. dal di jëla gaal dugg ci gaal gi hmm. dem ba ca kanam xadir génne jumtukaayam hmm. dal nekk ci gaal gi de ko bënn gaal ak jàmbur nga di ko bënn yow da ngaa bëgg a labal ci gaal gi <laughs> da ngaa bënn gaal gi gaal ak jàmbur da ngaa bëgg a labal ci mooy fantalaka hatta ida rakiba fi sabinati xarabtaha hmm. hmm. tellu bu baax hmm. a baax qaala a xarabtaha li tuxriqa ahlaha laqad jita saamina xadir na ba alama xuli nag lan tastatiha maya sabra waxoon naa waxoon naa ne mënuñu ànd waxoon naa ne mënuñu ànd mu ne ko laa tuwaaxit ni bi ma nasiitu wala turiq ni bi ma léegi dama bëgg rek daal li mu li mu ko jàppee dama ko fàtte woon ñu delluwaat ndax bañ wàccee dajee mm-hmm. genn guni ñu mm-hmm. bu rafet rafet mm-hmm. ba ñu dajee rek xajir dal di fàdd guni gi mu dee fantalaqa hatta iza laqiya ghulaman fa qatalahu waxoon ne la kooku kooku bu jawe mënuñu ànd mm. yow ne mënu waxoon naa ne mënuñu ànd mm. yow ne dafa jàkkaarloo waxoon naa la ne kanam dafa am buur bu fa nekk bu jeng bu xam ne bu ko gaaroon bi te amul sikk rek hmm. da koy nangu hmm. léegi su ma ko nag hmm. bën bën ba bu ko dégg bën bën ba buur bi dana ko gis muy ayib loolu muy soree gaal te loolu mu taxoon na bën mu ne ko gune gi ay way juróom dañoo baax lool te muy seen nattu sama borom sant ma ne naa ko rey mu wutal la leen ku gën ndax li mu doyee yi man hmm. leen a yóbbee kéefër su dundee ñoom hmm. mu ne ko làkk bi nag hmm. ñaari gone yoo amul bàyyi ñoo moom te ci biir làkk ba seen xalaat lak te seen bàyyi foo baax a baax la woon dëkk boobu ñu demoon tañ bañ ne duñ leen defal dara maanaam xarut de Moussa xablu wal xadiru su ko defee xadir nag wax yu bëree bëri la ci nit ñi wax hmm. am nañu ne mu ngi am nañu ne mu ngi dund ba léegi hmm. ak hmm. wax ne ñu ngi dund ba léegi am nañu wax loolu selon bu baax am nañu wax loolu ndax nabi yu la woon wala rasul wala wali yu la woon ji waaye li gën a wér hmm. mooy dur yonent hmm. xam nga li la koy xamal hmm. ku toll ni yonent yàlla Moussa du ànd ak ab yonent <coughs> de ne yonent maasum la te man nangu ne nit maasum la muy ko dinga sëdi te ku toll ni Moussa man daa ànd am nabiyu de réere nubuwa te mu doon dinga xadir moo laa xamal ne du nabiyu su ko defee yooyam mu def nag te Moussa doon ko dinga mu mujj dara de leeral li tax Moussa topp ko mel ni kuy xamlu firiwut ne moom moo ëpp xam-xam Moussa firiwut ne itam moom moo gën Moussa Moussa kenn la ci ulul azmi ñu néewa ko gën ci bindeefi yàlla yi te itam euh, li am ba am mooy xadir Moussa moo ko fekk ci liggéeyam fañ bokkul liggéey te Moussa fekk ko ca la mooy liggéey muy ko waxal moom ca la muy liggéey noonu la demee waaye firiwut na nag moom moo gën a xam moo ko xam Moussa wala moo gën a jege yàlla tey ministère bi nga xam ne moo moo xamee mbayam réew mi suñ toogoon ba nawet bu dikkee ci àll baykat yi ñoo koy wan tool yi ndax baykat yi ñoo ne ci bi loolu firiwut ne baykat bi dafa gën a xam intérêt bi nga xam ne moo ne ci moom réew mi daa am ci mbay firiwut loolu firiwul ne baykat bi dafa gën a xam mbay mi bu ko réew mi dugal hmm. firiwul ne baykat bi day xam ci mbay mi bénéfice boo ne ministère mënu ko am hmm. waaye lu mën a xaw nag moom moo ci àll bi hmm. moo de wane àll de noonu la mel de noonu la mel rek de waaw waxtalafat fi xadirin ahlun nusuul qiila waliyun wa nabiyun wa rasul ñu ne waliyu la ñu ne nabiyu rasul la luqmaana wuute boobu xam ji sil qarnayni wuute boobu xam na ji hawa maryami luqmaana sil qar hawa maryami wal manhu fil jamii ra'yul mu'dami li nga xam mooy ra'yul mu'dami loola ma mooy ñi kenn du ci nabi laqabam la nee nañ abbas mooy kuniyaam mu ngi tudd bilya ibnu malkan ñu ne biliyaa moo tolloog ahmad ci waxi arab hmm. wax nañ ko hmm. ñu ne xadir laqabam la kon abul mooy kuniyaam hmm. mu ngi tudd biliyaa biliyaa mooy ahmad ci seen luxa ñu ne baay bi malkaan la tudd ñu ne ku ko xamee noonu le sama borom dana ko wartagal al mawtu alal islami dañ ko de wax ci moom waaw wal xadirul masuuru bayna william nu malkaana abul habbaasi man harafal kunyata summata suma aban mahal laqabi maata muslima dañ ko de wax ci moom waaw nu bind waaw loolu am solo la ñu waxoon nañu xadir nag la ñu wax duñu wax xudar dañu wax xidru wala xadir waaye xudar moom duñ ko def xudar moom yàqi nit ñi la rek xidru la ñu wax wala xudar wala xadir waaye duñu wax duñu wax duñu wax duñu wax xudar nag waaw xadru da xablu wal xadiru mooy laqab bi mm. li mooy mm. li mooy kunya mm. li mooy bàyyi bi kunya ta suma ta suma topp aban ak baay bi hmm. maa laqa bi hmm. mata muslima hmm. dañ ko di wax ci moom dañ ko di wax ci moom abal haasiyatu sawi xaj bi xaj bi ñetteel bi xaj bi wax ci soratu kër bi xaj bi soratu kër bi nekk boo demee ci Isaaba Ibnu Hajar mm. lu bari la bind ci moom ak jukki la bind ci moom mm. nga bind ba pare mu ne lii daal mm. man mooy xam-xam yi ma am ci xadir mas naa ko ba liir ba mu jeex lan ci bind ak jukki la ah ñoom mu ngi fii Isaaba moom ba amee fii waaye ci laa gis am na ñu wax ne mu ngi dund am na ñu dem wax ne mu ngi dund dana fa jàng ay ñaan yu baax sax yoo xam ne dafa daji nekk li ay mbir yoo xam ne mm. ko daje woon ak moom mm. moom ko joxoon na ko fan yooyu mm. eh, tijjil ma ca kaw xasir bi xadir xa maa kasi daadi muy xadir mm. aw sukkooniha mm. walla boo xadru mm. wa bi kasel xaayi maa sukkooniha walla xidru ñetti loxo yooyu moo ci am mu ne waasa laqabu wasmuhu mooy balya bi faril ba wa sukkooni lam baadaha yaun tahti baadal maqsuura wa maanaahu bil arabiya ahmad ibnu malkan wa kunyatuhu abul abbas qaala baadul aarifiina man arafa smahu wasma abihi wa kunyatahu wa laqabahu maata alal islam dañ ko wax dañ ko wax ah wal qadiru al mashhuru bayna annaasi bal yamnu mal kaana abul abbaasi man arafa al kunyata summata summa aban ma laqabi maata muslima dunne nag maa ko wéy ci téere laa ba mu gisee ay téere la mu waxoon te waxi bàyyam ja daal mel ni fa koy dingat xaw naa ko wutee de ma waxee nii defee nii moo wax na xaaris nee na falamma raa ba gisee alqaadi qaadi ji tanaafiya qawlil fata dàqu hante waxi gune gi wa fi'li ak jëfam wa taxalliyoo ak takkaayoo xam mm. bi maa ci lu ne lay sa déet moom min ahlihi mu bokk ci ñooñam mm. xaadi ji nag bi mu gisee daal gune gi ni mu waxee mm. ak ni mooy defee ak jom ji mu ak waxam ji ni mu ko tegtale xadee nasara xool na ilayhi jëm ci moom bi hay nin ci bët rabba bu daa ji mer da ko ba tëb jëppi wa qaala mu ne ko atamimi yan ndax ba ngay doo ko jug tamim mm. maratan aw yoon mm. naka jekk ay sang lañ mm. wa xëysi yan nga doo ko jug xëysu uxraa ci beneen jamono xamee wuñ leen ci melooy sang nit si gor dafa am nu nu mel nit mën a xam nu mu koo jàppee ay jamono nga dee sang ay jamono nga dee taxawaalu ko neexul a xam kufin cam mm-hmm. li man ñaal koo xam ne yan fudu yan kudu dana mu teppi mm-hmm. yan kudu dana mu teppi mm-hmm. wala yan fudu loo bind yan kudu ah, dana mu teppi ma yaqulu lu muy wax man koo faale wul kàddu dara sabu ma wayata la wanu te muy mellowu kama tata la wanu ni ngi melloo alxoolu njuuma tey nii xëllëg na de loolu daal man borom moom hmm. mbiram mënu may sot hmm. fa qaala daal di wax alxulaam hmm. gune gi wax xaadi ji ne ko walla di giñ naa ci buur bi nga xam ne jaxalaka def na mu la miftaahan nga de caabi lil xaq ñaal dëgg wa fattaahan tey hubbihaa koon mooy xattekat baynal xalqi ci diggante mbindeef yi mu jox la doole joo mën a rek la laqad unsitu fàtte woon naa de. Mm. mu asitu waxtu ma jàqee mu ne ko xam nga jaaxle day mëdd xel. Mm. dama jaaxle woon fàtte li lépp. Mm. laqad unsitu fàtte fàtte na ma de. mu asitu waxtu ma jàqee. wasa di xoomaag na. fii nii sama xel bi. mu sadiitu waxtu ma maree. xam nga coono ba bëri lu muy waral. moo tax yu ko. d'accord naa sax lii man maa ko waxoon waaye dama ko fàtte woon hmm. ala ànd wax ànd ak luy mbir hmm. ay nal baabu ana buntu al bare bu ñu ubbi hmm. wala taw ak may asuru gudaaji yomb muy gudaaji wër gudaaji bari waaye fi mu ne ku bëgg a laaj ana koo de laaj waxal ba xiyaat ndax desati na man koo xam ne yetta barraxoo dana mu coobare oo bi luhaa ci may way sa tuut he moom bu loolee bu leloo ko yaqul dana wax ne haa am kan nga xam mu xam yërmande yi gis ku toll diggante mu dimbale ko wala kan nga xam mu jomin gor laaj ko mu mu xam bañ koo gàntu la xam man melokaan yi ma gis ci nit ñi gisuma jar laajte xalaat na waxaat nag luy mbir aynal baabu ana buntu alfutu ba de bu ñu ubbi mm. wala taaw ak may asuru gudaaji wër wala gubari mm. waal ba ndax desatina mm. man koo xam ne yetta barrama dana mu coobare o billuhaa ci may way da tunema bu lele ko yëqul dana wax ne haa jàppal am loolu moo am wax la wu ñaal gune gi alqaadi qaadi ji ne ko man fegul nag famaal xawaati yi han naa wéy moyi feemun perte saayibun guraaji jam wama kullu barqin duut gépp melax xaalibun daaji huruj mu ne ko gis nga fii ma toog nii ku fee li ngay xam ci muskile yi haju ci société bi ak li ngay xam ci mbiri nit ñi yow yaa koy xam nit ñi luñ doy doy waar mm. benn benn boo baax ngi ci seen biir mm. waaw affaire bon loo ñëpp mm. kooku moom d'accord ma ci waaw ma fegul nag fa maal xawaati yi xam naa wéy moy yi sa mun perte fayi bun gudaaji jam de dëgg la yi perte yi kay tiire mu moy bari na waaye na xam ne yuy jam de wa ma kullu barqin déet gépp mela xaali bon de aji wuruj de du ñëpp a respecté wu seen kàddu de fu mu yis na nga jàqe alburooxa melax yi isa simta boo séenu xam nga yaa war a xam ñor xam ki nga war a lay loolu nga war a def waaw fu mu yis na nga jàqe alburooxa melax yi isa simta boo séenu wala tasat bal seede illa bi ma ci li xam ne alim sax xam nga ko yow laajoo kenn mm. ba kenn gàntu la mm. nga ne nit ñi ay gàntukat lañ loolu mooy yaa ngi bëgg a dugg ci de mm. yaa ngi bëgg a dugg ci loo xamul de te nag waree wu de ndax fii dëgg rek moo fi indi wala tasaar te bul seede bi maa ndax li nga xam ne alim ta xam nga <coughs> su ko defee kilifa ñaare su waxee dafay bëgg lu dëgëral waxam lii na aboo séeri def ko muy occasion rek xam ne xaade ji ni mu weddi gune gi mm. léegi daal wane lu xëy gune gi dana ko neex mm. wala marta bayana ba biir loolu seexi ñaal góor gi mm. ne anal xaade ya naka xaade ji xat ba mer na mu lil kiraami ñaal way tedd yi waatama te mu màggal tab xiila jameel anaami xat ka ne nay mbooleem nit ñi alima mu xam ne an naka luy mbir an na naka luy naka moom xaade ji sa yansuru xeeti nay dimbale kalimata wa baatam wuyu si te dana feeñal. Mm. ëgg ma too mu xam ne Xadija koo gisam dara génn. Mm. da waxam ji bëgg na mu dër. Mm. ndax kilifa day fonk kàddu. sama kër sa ba saxul moom Abu Zaydin. an nasaba lu mooy mu samp sabakata wa mbaalam. loolu daal dem na ko occasion ci saasi rek. samp mbaalam. wasawaate mu lakk sama katoo jënam. bilaa ci lakk gi ci saasi rek. mu fexe am ci dara. wa am saa mu xarab yaqul di wax ne. yaa ayyuhal qaadi alladi ilmuhu wa hilmuhu arsaqu min radwa qad iddaha hada ala jahlihi an laysa fi dunya axu jadwa wa ma dara annaka min maasarin ataauhum kalmanni wassalwa fa jud bima yasnihi mustaxfiyan min maftara min kadibi daawa wa ansani jaslana usni bima aw lay tamit ceeb waaw amin adwa see ba du ma bind. mu ne yaa ayyuhal qaadi. e yow qaadi ji. alladi qaadi ji nga xam ne. xelmuwoo xam-xamam. wahilmuwoo ak lewetam mooy xelum niteem. arsaku moo gën a sax min radwa doju benn doj la boo xam ne mu ngi nekk ci boori madinatul munawwara mm. dafa nekk madrasul madrabul masali ci sax mm. dafa neex a yéeg nag ndax doj yu guddul mm. xëy na loolu la ko nit ñi gërëmee tax ñu naan ko ratwa xëy na loolu la boobu wala boog leneen la dégg nga sa sa xam-xam beeg sa lewet gi moo gën a dëgër ratwa yaa yow al qaadi yow qaadi ji alladi ji nga xam ne ilmuhu xam-xamam wa ilmuhu ak lewetam mooy niteem arsaku moo gën a sax min radwa doju radwa mm. xadi daha woote na xasa mm. kii xala jëli ànd ak réeram ne an naka luy mbir lay sa fi dunia nekkul ci àddina mm. axoo jadwaa borom may déggal kii ne àddina bi loo baax ko baax ne atu ci ndax réere gum réere yow àddina bi déggal kii ji ko baax ne atu ci ndég réere jamono te réere jamono moo ko taxaw xadi daha woote na xasa kii ala jëli ànd ak réeram mm. ne an naka luy mbir mm. lay fi dunia dédda nekk ci àddina mm. axoo jadwaa borom may fa la xamul rek te umpale la ci umpale jamono la bokk wa maa dara xamul ne an naka yow mi maasarin yaa ngi bokk ci mbooloo mu xam ne xataa um seen may kal mën ni mu ngi mel ni mën nu wa salwa nu ak salwa nit yonente yàlla Musaa yi la ko yàlla joxoon mm. ci suufu Siina xam nga Moussa gannaaw boo xamee na Firawna na des ak banu Israël <coughs> banu Israël dañ ko sonal dañoo ñàkk teggi góor ko nattade xilif ba mm. lool lool lool lool loolu li ma wax dañu war a dem Baytil Maqdis léegi mm. ñoom duñu fa dem su génnee ñoom sama borom gërëm loo leen gërëm loo leen ci jiiba siina hmm. ñeent fukki at yoo xam ne hmm. buñ xëyee da ba ngoon rek hmm. léegi buñ xëyee mën nañ dikkaat waaw innaa muharramun alayhim arba'iina sanatan yakiifuuna fil ard bàyyi leen rek loolu nag yóbbal jeex na lépp jeex na waaye sama borom ci ni bëri yërmande nag war na Moussa benn daj na ko dóor ci sa xeet bi hmm. mu dóor ci xeet ba fukki sewnde ak ñaar bal la hmm. te boo fukki kii la ñaar la hmm. ngir bu nekk xam bu ñu war a naane defaloon na leen itam waxtu lekk bu jot ñu mën nu ak salwa mën nu espèce lem la bu xam ne day tàbbi ñuy wëjal salwa benn njanaaw la bu xam ne bu neex a jàpp la loolu ci lañ daan dund. Hmm. di fi nekk ci téew bi. Hmm. mar loru leen. Hmm. xiib loru leen. xam nga la aw wërsëg la woo xam ne kenn sonnewu. ak ki ko jox sonnewu lu yàlla di it rek la. yow sa may. noonu la seetoo ji ku ku ah. ni mu ngi mel ni mën nu. ñu ne mooy turon jiin. ñee salwa mooy somani xeetu njanaaw la mm-hmm. wa salwa mm-hmm. fa jun na nga bi maa ci xam ne yas niihi dana ko wëññi mustaxsiyan mm-hmm. mu daaji torox min maa ci li xam ne iftara fenn na ko min kadibi daawa ci feni daawa tey nag war ngaa def lu xamee ne waxu dëgg na <laughs> defal xamee ne waxu dëgg rek fii dëgg lañ wane wan kon ko lii dëgg rek wa jur na nga tabee bi maa ci li ne yes nii dana ko wëññi moom gune gi mu tax seen mu daal di torox min maa ci li nga xam ne na ko min kadi bi daawa ci fena koote waansa nii ma wàññee ko jas laana te aji bég us nii dara taggee bi maa ci li ne aw layta maye ko min jadwaa ci may wa min adwaa ci ndimbal qaala xaaris nee na faasa dal di bég alqaadi qaadi ji li qawlihi ngir waxi góor gi di abu zaydin mm. waaye salate mu dijjal la wañaal ko min tawlihi ci mm. ji kontaan torop mm. jox ko lu takkoo takku ndax itam na ku kenn man dajeyee nen na baaxula inna alkarima isa qadaatahun qadaa waaw mu ne karim day nangu ñu nax waaye ku kenn man da nax ba jëlee ci yow dara baaxula tel moo tax baaxula moo jane rek dégg nga su ma la fata topp mu geesal mm. moom xaalis ji mm. wajawoo xar kanam ilal xulaami jëm ci gune gi mm. waxat nasala te bi moom daas na wala diit na lawoo ñaar ko asumal malaami fetti yeddeel bi mu joxee góor gi baagal na geesu gune gi nag fas yéene yedd ko wa qaala mu wax lawoo ñaar gune gi ne ko arayta solo nga gis nga de bun la sang mi ki sa jox de xanaa xam nga ne juum nga de mm. waxataa woo mi ka njuumte sa def de mm. wala sanjal balde gaawee ci bandaha ci gannaaw li bisam min ci ngañe mm. wala tanaat balde balde hot balde het moo daan bant qabla haj min ci njëkk natt nit dafa tey bala ngaa wax del tey <coughs> wala summa summa lafata topp mu geesal moom waaji moom waaji wajahu xar kanamu hmm. iltafata mooy geesoona mooy lazim hmm. labata mutaadila mooy geesaw na hmm. waaw loolu day jëfandikoo ñaari summa iltafata topp mu geesal wajahu xar kanamu ila xulaami jëm ci gune gi waqad nasala tembiroom daas na wala diin na la woo ñaal ko asumal malami petti yeddange far na yéene yeddu mooy diit na dégg nga hmm. wa mu wax la mu ne ko arayta solal ma hmm. mooy seetal bul la san mi ki yàqu sa njort li hmm. waxata a wa mi ka ak njuumte sa def def li wala tànjal bal gaaweti ban daa ci gannaaw li bi dam min ci ngañ wala tan xat te bul xettati moo daan banta xam na xaj min ci njëkk nattu wa iyaaka maa ngi lay wattande ko loo nag wata abika ak sa moy xam hmm. mu taawaate abika ci topp sa bay hmm. gannaaw tey nag hmm. bu mu dellu di ne wuti ngal sa bay waaw iyaaka maa ngi lay wattandeku lo wata abika ak sa moy xam mu taawaate abika ci topp sa bay fay naka naka yow in watta boo delloo ti tama xuuti ko moy xaaqa wàcc bi ka ci yow min nii ci man mata say xooli nga yow soo dellu wuuteeg moom ku mm-hmm. ñoo jaarale koo yarale ko mm-hmm. foofu la jaarale mm-hmm. fo yéen naka nag yow inoo ta boo delloo ti sama koo de ko mooy xaaxa wàcci bi ka ci yow min ni ci man mata tey koo li nga xeyoo fo suqita rotaleem alfata waaji bi yeddi ci loxo suqita bi yeddi mu rus na mooy suqita fi yadihi mooy rus na. loolu la loolu lay firi dégg nga. waaw mm. ah, xale bi daal di rus na wala ma suqita fi mooy rus na. Mm. xale bi rus na xam na ne xëy nañ ko. xëy na magal gune bu ñu wutee ci xelaat mm. wala li muy santaane ku ko bañit fii lay mujj. ah seetlu bu baax a baax daal ñu déggee ne daal. jamono itte daal pexe daal bu jotee def mm. pexe moom mooy li baax lu nga ciy déggee ci bi wala ba mu wéeru mm. bi xëq bi waalidi ci wàllu baayam mm. ci wàlli baayam su man haada topp mu buur moom moom gune gi yow fii du degaaw wa tabiahu topp ko ab seexu gi yoon si de sadd gune gi buur a dox bu gaaw bu ko defee nag góor gi topp ko defee nag man daama hu aw daara hu fal yaqtadi alqaadiya fi saada samaahu asra bi man qablahu wa adluhu anaaba man baada man daamahu ku gàcceel na ko dawruhu aw daarihu wala lor ko dawruhu jamono tanaasu wal amal ku jamono tollale barab fal yaqtasid na mu jublu alqaadiya qaadi fi saada na dem alqaadi saada samaahu wa tabem gi day asra xeeb na mu bi man ci ñi nga xam ne xam la woon nekk nañ hmm. de ay nit jiitu woon nañ ko fi hmm. waaye tuddatuñ ci kenn de hmm. ndax njëriñ li nemmeeku ci moom mosuñ ko ji waxaat lu woo mandum ana ba sonnal na man ñi nga xam ne ba ba de woon nekk nañ ci gannaaw kama yërëm nag mooy ko koy war a wuutu ji soo ko bëgg a roy ci mandu ah da nga sonn qaala raawi na fa hirtu ma bayna taarifi seexi ci diggante xamle góor gi wa tankiir ak pakkalam wala bayna taarifi seexi ci diggante maarifal góor gi wa yi ak nëkkiraalam ma daal ma gëlëm ndax dama leeral góor gi kim dox wala naa ilaa ani raw ilaa ani raw ba mu jeng li masiri yi jëm ci doxam dengi dengi boobu ci laa nekk hmm. ba xaw yoonam dem hmm. fa naajee tu ma déyaale an nafsa sama bakkan hmm. bitti baa ngi ci toppam walaw ilaari baa ngi doonte bay dem ba ñu këram sama kàlla naa topp ci kaw doonte dama ko fekk këram laa andi ya ndax man alxaru maqam mooy mayëg ala asraari yi ci mbootam waarifa ak maqam sajarata naar yi garabu safara maqam daal pexe mi lunda fa nabattu masanni alxolaqa gàllankoor yi mm. xëy na boo maa ngi fi mbir yu jar li jëlti sax mm. waaye yëpp dama leen jële mm. wan talaqtuma boyu xay sun talaqa fu mu boyu ma topp yoonam rek walam yasal dañul yaxtoo di jeegowu waa taqibu may guud al intiqaab mooy topp nit fu mu teg tàngam nga teg fa sa tànk loolu mooy intiqaab boo gisee marqué tàngam rek teg fa sa tànk wayamoodu muy sori waa xatari bu may jege xam naa mu ngi gën de sori dëkk bi waaye mayin maa ngi ko gën de jege ilaa an saraa ba feeñ a soxsaane ñaari jëmm ni laa toppee ba seen ñaari nit ñu ànd waxaqa tey ataarufu xamante al xusaani ci xarit yi xam ne fi mu ne moom xëy na daal dañ mën a waxtaane fii jamu ji wuri na daal faab daa mu feeñal ina isin ca booba de alihtisaasa tàlle xar kanam wara fa mu yëkkati alihtihaasa loxo ga xam nga doon karkari mu ne booba nag la bàyyi karkar jadi ni jël loo fi rek hmm. waqaala mu ne man kaadaba ku fenal axaaw mbokkam wala xaata yàlla bu mu dundati ma ne ku la nax yàlla na deewaay hmm. loolu <laughs> waa de ah man kaadaba ku fenal axaaw mbokkam wala xaata yàlla bu mu dundati hmm. fa arabtu ma xam inda saalika ca foofale ne am na woo na ko asarooji booba laa xam ne sarooji la bila mahalatin ci lulul jaar wala huwulu haalatin du caageen jàllarbeeku mbir wala huwuli haalatin du caageen jàllarbeeku mbir faasantu ma gaaw ilayhi jëm ci moom li usaafihahu ngir naa joxanteeg moom loxo ma gaaw bëgg a joxanteeg loxo waa taarifa ak maqam saanihahu wa baarihahu saanih mooy hiw baarih mooy hay rab bi la dikkee nii mm. ci sa ndeyjoor mm. mooy saaneex mm. bi la dikkee ci sa gannaaw mooy baareex rab bi dañ ko daan def na sajuru tayri da ngay teel a jóg rek wala boobu nga xam bis baax na wala baaxul su ko defee seet gannaaw koy jëkk a dajee su la ñëwee ndeyjoor nga ne mbir mi baax na su nga ne baax na dagg ba jiwu xullu boo xam ne borom dana génn hmm. su génnee aw sa ndeyjoor nga ne baax na hmm. su génnee aw sa càmmoñ nga ne baaxul saa neex mooy bi aw ndeyjoor hmm. saa neex mooy bi aw càmmoñ waaye loolu la islam nangu waaw waa taarifa ak maqam saaniha woo hiwam wa bariha woo ak hayam bëgg naa xam mbiram hmm. ma ne naa gaaw jox ko la fa xaala mu ne doona ka jàppal hmm. dim naa xi dim naa xi ka doomi sa mbokk albarra kuraaji albarra kuraaji baax hmm. mu joxeñ ma xaalis sa doom ja baax a ngóob wa tarakani mu bàyyi ma wa marrate mu wéy gaaw wéy falam yaadu saxul alfata waaji mooy gone gi anif tarra lu muy mu su ma farra topp mu daw kama farra ni bàyyam dawe xale bi muñal ma rek da nga poccete ko na ànd ak góor ñi hmm. famattum wàññeeku hmm. waxadis tabantu te mbirum ba birlu na hmm. ay na ma seen jëm ma dëpp wut naa leen waxoon tu ma wëññeeku waxari taban du semiroon birlu na ay noo maa seen jëm wut naa leen wut dama dëpp te wut naa leen wut walakin waaye nag ay na huma ana ñoom ñaar xanaa moom mi leen gisoon de moom lañ ko war a laaj ay moo koy laaj dana continué waaw waaw